ngi toog ñu ngi dégg ndimbal ndimbal waaye gisuñ ci dara. mais ministère de la culture ngeen ngeen ngeen wekku wala artisanat artisanat ci monsieur Dame Diop wala waaw. Dame Diop nañ ko leetar moom su moom lañ ko leetar. très parce que ñoom ci ñun secteur yëpp dañu laal. Mhm, mhm. waaw ñooñu ñëpp dañuy xaar seen ndimbal parce que ñu ngi koy dégg te ñun kenn doon ñu si yaay. ah d' waaw te foofu daanaka ay borom kër ñoo fa nekk. boo demee tey da ngay sax marché ñenn hmm. xale yi nga xam ne yor nañu moto dañuy mujj si ay jakarta la ñuy def. Hmm. maanaam di di cag cag. ji la ñuy jéem a lijjanti ko pour am dépense. très bien am na ñoo xam ne amuñu loolu dañoo mujj toog. di xaar yàlla. léegi da ngeen gën a organiser wu rek dégg nga ci wàllu ndimbal yi. Euh, waaw ministère yi naam ñoom ñi ngeen wékku war na leen ñu bàyyi leen xel waaye ñoom tam ñu am interlocuteur donc da di gaaw rapidement. organiser wu non am nañ organisation. waaw très bien am na organisation am na ay jeunes yu fa lépp. c' waaw waaw vraiment mais même maire Dakar Plateau Alioune Ndoye ñu ngi xaar moom parce que moom ci la ñu nekk. oui oui moom la fay juuti moom la fay lépp. dëgg la. ci ci mairie moom sax ñu koy xaar première dame nag ñu koy sant bu baax parce que foofu marché am la moom it. Mhm. Marème Faye Sall vraiment. Mhm. vraiment kontaan nañ bu baax a baax. jërëjëf sëñ Fallou jërëjëf El Hadj Assane merci beaucoup jërëjëf. merci merci Oustaz Taïb Socé ñu waxtaan ak mbokk yi laata may jël euh, <laughs> professeur Camara allo docteur ndax xam ngeen ni euh, ñaaxe gi du doy. sensibiliser gi du doy ndax souvent aussi naam ñi nuy fësal mooy ñiy wane ak dëgër bopp mais boo xoolee ñi réagir ak ñi lay woowaat mooy jot ci vocal yooyu ci ndaw ñi surtout ñi réagir ne woy lii dégg nañ ko rafetlu nañ ko ñoo nga ca loolu tam am na solo mais daal waxtaan du doy Oustaz maa ngi lay nuyu. Alaaji Asan maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay fay maa ngi lay nuyu. jërëjëf Socé ñu ngi lay ñaanal kooru jàmm. amiin waaw maa ngi ndokkeel jullit ñëpp rawatina Sénégal yi. Mm-hmm. ci weeru ñaan yàlla nag buy dem mu yóbbuwaale corona. amiin yaa rabbi. te loolu ñu ngi am yaakaar incha allah. incha allah. vraiment léegi ci liñ ci war rek ndax ndimbal dajay fekk loxol borom xanaa ñu gën a ñaax mbokk yi ci neen war a gën a taxawee gën a ànd ak dal. ak teggin yi. Ah, daal di woor ci jàmm naam mais euh, fexe ba ak yi wàññeeku bu baax a baax ku ñu wax lii daal mooy lor sa moroom nga moytu ko. surtout Alaaji Euh, weeru koor. Mm. vraiment defe naa kenn du ko jàngal kenn xanaa dañuy fàttale wante. Mm-hmm. mais discipline yi mu ñu jàngal moom suñ ko booleeg vraiment yi nekkoon nii. Mm. ah waxuma la yoolug yàlla waaye corona bi daf fiy jógee de. dëgg la de dëgg la de. ndax koor ci boppam xam naa loolu wàllu médecin docteur boobu soo paree nga laaj ko ko. Mm-hmm. santé bi muy jox nit ak bi muy dëgërale sa anticorps. Mm. kooku scientifiquement génne nañ ko ba kenn waxatu ko. dëgg la ak yar ga ak set ga. ak dal ga ak dal ga ak yaru ga dëgg la ak julli ya ak ñaan ya ak hmm. toroxlu ci sunu borom hmm. ah bari na ngëneel de <laughs> macha allah yaakaar ni daal vraiment ñu boole ci torox yu la hmm. toroxlu ñaan julli ak dal ak jàng alquran ndax weeru koor weer wi rek ci boppam moom zarf la boo xam ne zarf benn ndab la boo xam ne spécial la dëgg la ndab loo xam ne yàlla yiw la ci sotti ba mu fees daal su boolee suñ ca boolee ak toroxlu mm. boole ca ak dal ak jàng alxuraan ak ñaan mm. Euh, ak di jaamu yàlla ak rafetal xol yi ak di dimbalante. surtout ah, surtout yaakaar naa ne vraiment bu koor gi dem du fi bàyyi corona corona bu am solo de. <laughs> dañ koy daal di wariwaale rek <laughs> ah, loolu loolu neex na loolu sax ah. dañuy wariwaale moom de am na jaakaar de. bu ko defee poos yi dara nekkaat ci de ndax nit ñi sonn nañu. poos yi su boobaa dañ ci poos yi su boobaa yàlla maanaam bu bu yëf yi. yëf yi bu demee rek. waaw bu demee rek ñu gënaat rek poos yi ñëwaat incha allah. day day ñëwaat El maa ngi ndokkeel ñëpp. Saalum hmm. Saalum yu bari nag war nañ ñoom. ah ndeysaan alhamdulilah ñuy yàlla dogu ci ci jàmm génn ci jàmm ci barke yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Socé. waa ci kanam ah, jërëjëf yoonu jàmm yoonu jàmm. Oustaz jërëjëf incha allah merci. merci beaucoup Oustaz Taïb Socé la ak ñun eh, ci daan corona ni ngeen ko baaxoo ajjuma ju ne ci kàttanu borom bi di ngeen ànd ak moom ci kanam ci kanam tuuti lay doon ci tafsirul Quran eh, naka noonu it eh, ci weeru koor gi yëpp ak desk religieux bu rajo Futur Média incha allah kenn du ca des ginnaaw Oustaz Mor Thiam Oustaz Ndiaga

bu yembee rek euh, ngeen daal di jibal seeni laaj mbokk yi euh, ci ba tey ji ci wàllu jàngoro ji ak euh, li leen ci leerul seen bopp ndax souvent information itam nit ñi fu ne lañ koy jëlee ba ci vocalante yi léeg-léeg ni ñu yónnante ay boite vocale ak yooyu am ku naan waa Madagascar a ngi jëfandikoo garab nangam am na sax sànku ci wàllu xobi kàddu yooyu bu ngeen fi baxalee xob naan ko di ngeen fi indi jafe-jafe yoo xam ni yu raw corona lay doon nañuy déglu waa kër docteur di déglu officiel geeg liy jaay ci pharmacie yeeg am na solo lool en tout cas moo gën a wóor ndax balaa lay complication di tubaab tudde complication maanaam yow sa pën paan ngay jéem a defar ba foofu moteur ba lépp daal di faf yàqu waaw euh, professeur Makhtar Kamara maa ngi lay ziar bu baax. jërëjëf jërëjëf Kamara ci ànd bi ak ñun kon ñu daal di la dalal rek ci wàllu euh, situation beeg tolluwaay li. waaw di xanaa di jaajëfal euh, Oustaz Taïb Socé. Ah. wax bu am solo wax bu am solo bu wax si mm-hmm. am solo la si wér-gu-yaram nit. gannaaw mm-hmm. ne booy xool sax. man na say gërëm gërëm ak si àdduna hmm. àdduna gën a mësu xam hmm? Hmm. rasulullah sallallahu naa ni moom bu ñuy toppee koor si wér giram non seulement si wér giram mais aussi si gàtt tànk dëgg la gàtt tànk wañ wax ju bari ji parce que wax ju bari ji aussi mën na indi contamination laaj na dal waaw laaj na dal quoi vraiment bu ñu toppee daal gàtt tànk boobu si koor lekk li nga war lekk lekk bu sell. Hmm? incha allah ko war mhm. bu lekk bu équilibré. oui. parce suñ ko defee yàlla daf def mhm. ñu génn caa wér. comme ni euh, ko waxee rek moo ndax na ànd ak wari dem. <laughs> bu ñu wooree souvent dañuy gis nit ñi nag. di bokk si laa si waaw. <laughs> moo tax dem dama dem super benn benn supermarché bu mag si si dëkk bi. waay. gis naan daal nit ci bëriñ fa lool lool lool. Mm-hmm. nañ fa taxawee aussi tax ko jekk noonu. Mm-hmm. ndax nit ci jegante nañ lool sax. ñan waay. sol ñi soluñ masque ñenn ñi soluñ masque. Mm-hmm. am na yor yor masque sax dañu ko ci seen sikkim. li ma fi gën a yëm rek mooy jaaykat yi nekkoo si biir. waay. ñuy jaay charcuterie yi xam nga aussi say say. ah Touré Touré ñoom dañoo bëgg ay ay charcuterie. ay ndawal ak yooyu. waaw euh, charcuterie yi nga yi ne kenn du ko togg mooy. saucisson euh, hmm. yeeg. oui oui. yooyu ay ñoom jambon ki ak yenn ak yenn fromage yi hmm, hmm. dama gis ne ñi ko doon jaay. tiim ko di ko dagg di ko peese. am na ñetti ñetti ñetti ñoo xam ne si ñoom yoroon nañu masque de mais soluñu masque dañu ko teg seen sikkim. suuf seen suufu ngay jëm ñaar ngay peese. ay c'est pas normal. xam nga li mu wër yem la dem. dëgg la day na waar xam naa baax na vraiment que waa service d'hygiène. wàcc que yab yab nañ trop marché yi. Mm-hmm. te mm-hmm. euh, foog ni ñoom ñooy gën a ah, set léeg ñoo gën set ñooy gën a salte ñu baal ma ah, loolu mooy danger euh, boo xam ne yow doo ko togg mm-hmm. am na biirum jambon si son ko togg dëgg la fromage doo ko togg très bien bu ko doon togg sax xëy mu sax mu rey mu rey doomu jàngoro ji. dëgg la doo ko togg. Mhm. noonu nga koy jëlee booy dog ñenn ñi def ko seen mburu wala def def ko leneen donc loolu danger bu bu rëy a rëy rëy jar a bàyyi xel la. am na solo. Euh, loolu nag ñaar daal gars yi suñu autorité yi bàyyi xel bu baax. jangoro ji ci walu euh, transmission bi wax nañ ci tiflit yeeg ak yoy particulier ca bu ñu nit ñi dañuy bari lu ñuy tifli euh, mm. déjà c'était un comportement buñu ñu euh, di di ñaawlu waaw mm. wor tekki tekkiwul rek fo jog sanni saw lor tifli mm. ak yo xamni sax mu ne su ko wax ci jamono yi ndékk yi mbokk déglukat yi nekk donc mm-hmm. ñu moytu ko dal ndax loolu moy gëna a doon mode de transmission bu gaaw bi bu fekkee ni non lañ ko ne doxale loolu nga loolu solo xam nga dañuy tàmm bu ñuy woor di soccu socc lu baax la. Mhm. lu baax a baax la garab garab la moom. Mhm. dañu bëri dañuy socc di ko di ko après di ko di ko bosol di ko sànni si si mbedd bi di ko tolli loolu lu jar a la. Mhm. soo koy def vraiment mën nga ko def sa kër wala sa bërëb liggéey xam na ngay jege boo boo boo boo bëggee ci fekk dem ci lu ko. waaye di ko jublu si mbedd yi muy jógaat wala di contaminé yenn parties yenn surfaces yi. loolu mën na jur musiba. vraiment lu jar lu a. ñu moytu ko dafa am sax rafetul vraiment. dëgg la nekk na di tuuti. waaw du si war ngay xaaxandiku. si <laughs> say loxo. de fomp fomp ci seen bu <laughs> jël fomp beneen benn <laughs> na moos. ah Sénégal <laughs> ñu xool ak auditeurs yi Aliou asalaamualeykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. El Hadj ngi lay nuyu di la ñu ngi lay delloo di ziara sëñ docteur Samara ak sa technicien bi Aliou di la balu ak nak alaaji di balu ak bu baax nag non bal lañ la baax yow tamit nga baal non nit nit ku baax nga yow yow yow nit ku baax nga ndax dama gis ni ma lay yabee te <laughs> saa ne nga xëy dugg dugal say koppar euh, dëgg la kay maanaam yëpp ngir yitte xam nga dëgg la xam nga borom bindikat bi dafa wax ne hmm. nee na loo def ci lu baax hmm. loo mën def ci lu baax ak lu baax baax lu mu dina am ñu am na nekk ci na bi mu ci baax rek nga nekk la jërëjëf lay jaar bu baax xanaa boo may alaaji ci hmm. Touba Gale nga xam ne yàlla def na ngi tëj marché Ocass ñu koy rafetlu waaw waaye alaaji xam nga oto Touba Mbacke xam nga hmm, waaw Touba Mbacke daal maa bëggoon autorité yi xoolaat xoolaat ci taxawaay bi ñu jàpp comme Touba Mbacke 404 mbaar yooyu gaaw yooyu waaw waaw buñ toogee mën a yow ñu toog suñu om dañuy laalan hmm, ñu jàkkaarloo te day oto côté bu ne day def juróom benn nit muy fukk ak ñaar ci L200 oto bi ni mu xate ak sareet yi nga xam ne ñooy yëpp Touba maanaam daal su ma sañoon daal autorité xoolaat xeex bi Touba ci wàllu transport bi bu baax a baax waaw ñu ñu wàññi ñu wàññi lim bi rek ak jël matuwaay soli masque ak yooyu rek xam nga comme ni ñu ci la daane seen doole dañuy waxtaan ak ñoom rek ñu kon ne di am lu ñu yóbbu seen i kër waaye di respecté di respecté geste barrière bu ko defee jàmm ne ñooy wallaay noonu la demee alaaji beneen mooy alaaji nañu waxante dëgg gis nga suñu waxante dëgg transport bi ñu tere diggante dëkk ak dëkk hmm. ñi koy def bu la neexee ngeen def seen i gëstu koy def ci pakk dara lañ bokk dëgg la man am na lu ma ci am na lu ma ci jot moo tax aussi foofu kilifa yi war nañ gën a xool contrôle yi contrôle yi mais c'est au delà même Afrique bi yaa ngi déglu ci RFI tey Afrique Afrique may vraiment ñun tamit doy na waar daal les autorités waruñ doxali neen waay waay waaw beneen bi mooy damay laaj docteur Camara dañoo gis président Madagascar bi mu ne am na garab moom bu ñuy faje seen dëkk ah. wàllu jàngoro ji léegi may laaj moom docteur Camara Afrique moom ban scientifique yi ban xalaat lañ def ci parce que yaakaar naa ne bu defee ay xalaat rek mën nañoo solution bi nga xam ne faj suñu malaan yi nekk suñu dëkk donte ne ñu ngi si chloroquine bi mi ngi ciy def ay jéego mm-hmm. beneen bi yi ñu doon wax ak jumaa yi dama di waxtaan ak benn médecin mu ne ma ak jumaa yi duñ a ko mm-hmm. am jàngoro ji bu tëggee ci moquette bi da koy da koy dafay bàyyi mm-hmm. jël mu ne looloo tax duñ mën a duñ jàkk yi may laaj xalaatam moom docteur professeur ci wàllu gëstu yi Afrique est-ce que mu ngi am ak pentam ak wàllu euh, fent ndax euh, Madagascar ñoom nee nañ yor ñu ngeek euh, seen garab. waaw Madagascar ci Afrique la bokk. Mm-hmm. te li ma koy dem dafa nekk réew boo xam ne yàlla dafa baaxee ay gàncax yu bëree bëri bëri bëri yoo am solo si mbiru faj. Mm. bu ñuy xool sax docteur yu bëri fa lañ ñëw di jël ay gàncax dafa defal seen garab donc ñun Afrique wax dëgg yàlla. Mm. booy xool beneen beneen aussi. jamono yee passé. am na benn benn benn garab bu ñu defar boo xam ne si kañ joxe ñu ko defaree. mais boobu dafa war na mën a faj ñi am ñi am doomu jàngoro ji. bien sûr laaj na aussi yeneen gëstu yu gën a sori mais yaakaar ne après mu ngi si bu baax ah. li li ma jàpp si mooy li ma waxoon jëmb rek mooy eh, eh, garabu bari Madagascar boobu garab boobu pour paludisme la. Hmm, hmm. mais garab boobu soreetul soreetul trop ak chloroquine. xëy hmm, day njort rek ni chloroquine amee effet bu baax. Mmh. doomu jàngoro ji jaragoo si noonu la amee effet baax si doomu jàngoro ji. lu jar a gëstu jar a ko ne la aussi jar a seetlu am lu relève justement yaa ngi ne pour Sibourou la mais maintenant mhm. professeur Luc Montagnier bu France bu nekk euh, euh, prix Nobel médecine en 2008 su ma juumul wax na fi fan ci ginnaaw ne virus bi ci boppam coronavirus benn ànd na ak ay particules VIH pour jàngoro sida mhm. ak plasma plasmodium bi nga xamante ni mooy mooy mooy ci wàllu Sibourou gi kon kay mhm. dafa mel ni yëf yi am na jegeyantoo lan nga xalaat d'abord ci boobu sorti euh, xalaatu professeur Montagnier man de sorti boobu de wax dëgg yàlla man ci sama xam-xam man hmm.

uh, eh, El eh, Supaseur, hmm. mmh. IRSF, okay. Dantec, Ayanyan, même, même HMO. Mmh. D'ailleurs, c'est une région de Gossou, Inch'Allah. Ouais, Alhamdulillah. Gossou, bah. Très bien. Parce qu'un pasteur croit qu'on est Gossou. Ouais. ñu xool auditeurs yi asalaamaaleykum am na aussi oui oh, allez-y professeur lu mu waxoon ci ci mosquée yi ndax waaw jumaa yi waaw daf ni sujjot waaw bu ñu sujjeetee ci jumaa yi wax waaw ngi waaw loolu lañ parce que nit xamuñ ndax masque ndax

Allô Allô allo asalaamaaleykum aleykum assalam. bismillah Ah. waaw maa ngi laa ziar <laughs> kooku de sëñ Moustapha la waaw maa ngi ziar bu baax a baax jërëjëf Moustapha maa lay féliciter pour ce courage <laughs> ak ce discours de vérité Moustapha jërëjëf mais maa lay féliciter pour ce courage bi nga am ak ce discours de vérité mais gis nga xaaj hmm gis nga situation bi. Mm-hmm. la situation elle est mm-hmm. catastrophique. catastrophique. Mm-hmm. parce que gis nga question bi ma bëggoon poser Camara. mooy est-ce que est-ce que am na ay dispositions particulières pour ñu mën a protéger le personnel de santé. parce que gis nañ hôpital principal la fa xew. gis nañ aussi Mbour la fa xew. mais pour daaneel rek. élage gis nga mbir mi pour man ñaar la. dégg-dégg ak jomb

du wallaate nit ñi ñooy dem di ko walla ay nit. bu fekkee ni ba léegi nit ñi ñu ngi dem entre ay région ak région parce que chaque dernier élage mu ngi nekk fenn. Hmm. mu mu mu ñu nekk mbaa nga ñu eggale ko sama bureau après waaw. waaw waaw <laughs> d' accord ñu eggale ko sa bureau d' accord. <laughs> jërëjëf Mamadou <laughs> Moustapha Fall journaliste ñu koy gërëm bu baax di ko sant professeur.

yooyu lañu njëkk jàngal nit ci to oh, mbir bi soxee nag mooy jumtukaay ñoo doyul da hmm. mooy il faut ñox ko hmm. mu leer jumtukaay si waa kër sa dafa doyul jumtukaay yi isso protéger ñun masque yi dafa doyul hmm. loolu moom il faut ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax léegi parce que comme ni ñu waxee keroog rek mooy bu système de santé ndëmbeeloo moom mooy mos ba naaru laay ci ci wàllu jumtukaay yi xam nga euh, comme jamono tëdd na nii parce que adina ku ne sa bopp nga tal mënuñu gën a baral jéegu yi même sax masque yi nga xam ni waa kër docteur ñu ngi koy jëfandikoo ñu xool nees ko mën a amee norme yi mais daal ci defar lu bari fii nu ne nii. Ah, loolu day fekk ñu am industrie bu taxaw bu mën ko def. ah mënut a ne mais fu nekk loolu amagul. ah fu mu nekk nii masque en tissu moo fi am. masque en tissu de protéger waa kër docteur. c'est compliqué. parce que ñoom seen dëgg jaale ak maladie. Mm-hmm. moo tax du leen leen leen aar bu ñu mënoon def daal ba askan bi yam si juste ay masque en tissu yoo xam ne c'est dormé. Mhm. ñu bàyyi yene masques yi masques yi ay FFP2 yi masques chirurgicaux yi ñu bàyyi ko waa Kër Docteur. Mhm. comme doyul si àdduna bi. oui oui yooyu bu si gaawee daal. Mhm. gën a gën euh, masque tous yoo xam ne dafa jaar yoon. oui population bi jox ko ak nit ñi. yeneen yi xam ne waa Kër Solo bi bàyyi ko ñu waa Kër Solo parce que bëriwul si dëkk si a. mais kon on am ko xaw ma fu ko dem jaay jaayi waa Kër Docteur wala ministère bi ñu ñu def un peu de wala loolu mënu ne ñaan leen ñoom ñooñee koy. jaay mën na nekk mais ñoom aussi xam nga xam nga njëg bi aussi njëg boo xoolee boo xoolee option yu bëri doole. Hmm. ñenn ñi sax numéro yi ñu def si état buñ ko mooy donc fi mu nekk nii euh, dafay xaw day daal di betti. par rapport prix bi am temps yi prix bi parce que prix bu kawe kawe la. mu nekk nii. Mm-hmm. est-ce que ñu koy amee na aussi amee ñu ko lu yomb. oui oui ñu koy amee aussi ba cher. Euh, donc daal am na waaw ban volonté yi aussi bu ñu mënee gën a jàppale état rek borom alal yi. tout à fait waaw ñu gën a cest à ñu def équilibre rek li ñu ko nar a génne ay ay. bon boo nee li ñu nar jënde ceeb jënde ko masket xam naa sekkee di mere ma mais ñu ñu rationnel gi am ci rek quoi. ñu bañ a topp rek mbiri keesu gel yi dajaloo ko keesu omo yi ba fàtte li ëpp solo mooy jumtukaay. faj ñu gel yi sax wax dëgg yàlla gel yi moom jarul jéggaane. Mm-hmm, gel yi moom mm-hmm. wax dëgg yàlla xarañ ci baa ngi fii mën mën ko defar fii Sénégal bi. commencé mm-hmm. nañu ko defar sa yor Wait, yo lo importé. moom wax dëgg yàlla jarul dëgg la gel yooyu am na benn spécialiste bu ci wax ci observateur mais comme dermatologue la yow def naa doo dermatologue waaw donc moom il parle de d'éventuel euh, voilà allergie yooyu ak yoo xam ni mun na daal di néewal kàttan maniw ku góor kii mun na yàq ëmb mais loolu lépp kon ne mais bien évidemment ci utilisation gu ëpp ëpp gi la euh, ah, nangu na ni gel am na solo waaye mel ni ku koy sangoo toujours ndax nit ñi aussi dañuy ëppal souvent di raxasu rek raxasu rek <laughs> ñaari minutes yu ne nga jël yi pot bu ñu teg ci rédaction bi nga jeexal <laughs> journaliste RFM yi <laughs> Aliou ñu xool ci téléphone bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waay bisimilah Adja. Alaaji maa ngi lay nuyu di la ziare. jërëjëf Dieng. di nuyu sa docteur boobu. professeur Camara. di la wax ni la ah, di jaale nag ah, xaas may papaam jooju ak Malal Junior Diagne xaas de ah, nee na. xaas de yëguñu loolu moom. waaw papam daa gaañu na. ah ñu ngi koy jaale bu baax waaw. Mm-hmm. waaye nee na ah, corona bu doon nit yaag ah, ah, Moussa Thiam ci Sud FM dana leen porter plainte. <laughs> damaa réew sama bët yi jooy. <laughs> jërëjëf Alaaji Assane. Mm-hmm. yow la li nga wax ci nit ñi nit ñi nag as Alaaji Assane ngir yàlla ak yonent bi li docteur yi di digle. Mm-hmm. nanu ko def Alaaji Assane. na am na solo de. ndax maski yi am na ñoo xam ne ñii fii ci Touba gii ma dëkk. Mm. soo gisee ñett nit wala ñeent ñu ko takk. da nga gis fukk ñoo xam ne takkuñu ko. Mhm. feebar bi ba nëgë ni am na nit ñoo xam ne dañ naan feebar bi amul man li xew Sénégal la mhm. xamul Alaaji Assane Gueye lu mu dox. bu fekkoon ne Sénégal dong la sax ñu mën a critiquer. Mhm. mais loo xam ne réew yi yëpp. yaa ngi fay dégg muy suba yoo xam ne alaaji asan kenn mënuñ koo wax mhm. kon nag maa ngi ñaan nit ñi ngir ngar yàlla ak bi lii leen docteur yi digal mhm. ñu def ko ndax corona génn Sénégal am na solo beneen bi ci desit alaaji asan mhm. dund bi il faut xale waajooju li mu wax nit ñi danoo am ñoo xam ne sonn na ndax chauffeur transport boo xam ne nii ba lii amee ba léegi alaaji asan xëyoo góntoo te li ngay xëy rek ki nga yóbbul sa waa kër mm. muy coxeur muy nu mu doon dimbali laay ñaan ngir mm. yàlla mm. yonent bi ñu gaaw dëgg la te li nga wax ci borom alal yi nan génne nan génne nag milliards yi def ci banque yi allah yi asan jàppale ci nit ñi jënd ci ah. ay masque ak lu ne maa ngi jaajëfal Maodo Malick Mbaye bu Thiès waaw ah jërëjëf Maodo Malick dama def émission bu neex deux mm. heures yeete xam nga jot na ñu mel noonu ñuy mm. toog ci ay plateau jàmbaar la macha allah di nit ñi macha allah yàlla ko yàlla lafal Adja Soda damay yóbbante ñoom tam de askan woowu ngay wax région bu ñu mën a féete sonn nañu naam de mais nag dafa war a feeñ ci suñuy comportement tam xam nga mbir bu la sonalee da nga dangaa war a taxaw gën a xeex pour mu teel fay jóge mais ñoo ngi continuer di dëgër bopp ba léegi. Alaaji Assane réew mi jikko yee yàqu am réew bu demee ba jikko yee yàq réew ma dana yomb munoo ci ñoom ñaari dërëm wax nga ba sonn yow mii. <laughs> nit ñaa ngi lay dégg mais nit ñi seen comportement lii du problème mu Macky Sall du problème mu Youssou Ndour du problème mu ji Assane Gueye. feebar la bu fi yàlla wàcce lii leen docteur yi digal ndax amul kenn ku Sénégal kuy feebar te doo dem hôpital ah, dëgg la jërëjëf Guèye nekkal ci jàmm nuyul ma soxna Naata Fati dinañ ko dégg jërëjëf Naata Mbaye ak soxna Fati Dieng borom Covid 19 li journal euh, professeur ni nga ko waxee rek nit ñi nañ jéem a appliqué rek li ñu kër docteur wax mm-hmm. waaw dafa naan daal mooy benn pexe bi de amul pexe beneen covid loolu la ñu taxalikoo moom dépense yi ñuy jàmbat ak yëpp kay bu bëggee lépp ñu revenir à la dañuy xeex yëf yi mu dem fi méngoog suñuy suñuy taxawaay mm-hmm. waa kay dafa naa nii de gaa ngi may génnee génneeti waa euh, xalaas la xaw ma professeur kon xam naa ni ci masque yi rek du ñàkk peut-être lundi incha allah fi léegi booba gaa yi dem ci normalisation géeg yëpp yaatal ko ci réew mi ñëpp jot ci incha allah bu neexee yàlla mais kër docteur de il faut que aussi ñu wut pexe même bu dee coopération internationale gi wala lu mën a doon daal woote wàllu moom ayul. nañ dem euh, en tout cas ndimbal boobu sol nañ ko. oui oui incha allah jërëjëf professeur Camara. ok jërëjëf merci Makhtar Camara virologue ñu koy gërëm bu baax di ko sant di gërëm bu baax professeur Daoud Ndiaye ak Oustaz Taïb Socé docteur Aloyse Waly Diouf bu ministère de la santé ak it euh, ñi nga xamante ñooy suñu mbokki jaaykati objet d'art ca Kermel kenn ci ñoom duggoon na di sëñ Fallou Diop moom it ci ndimbal li ñuy xaar ci kilifa yi bu nu sañoon ñoom it ndimbal yooyu jib boobaak léegi ñu daal di ci jot ñu ngi delluy gërëm ñëpp di ñaanal jàmm ñëpp di jéggulu ñëpp ba altine incha allah